الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام yéen bokki julli ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi muy bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu di ci woo nag bokki jullit yëpp ñu ci woo kilifay diine yi nañ ñu ñaanal ci bis bi yàlla defal na ko defal na ci ndam defal na ci sutura defal na ci teraanga ñu ñu ngi soññi taalibe yi fi taalibe mën nekk ci tariqatul qadir nga ñëw wuy siñu ci bis bi ñu bokk teral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> di sant ndax fekk nañ ko daaw yàlla may na ñu toog ba ñu ñu ñu fekk ko ren di ñaan yàlla defal nu ci ndam defal nu ci jàmb defal ci xiiwal defal ci sutura ñu ngi nuyu nag kilifay diine yëpp jiital ci Cheikh Sama Taal Mbakke ak sëñ ak sëriñ Ceneba kilifay diine yi ci senegal yëpp ñu ngi leen di nuyu leen ndokkeel ci bis bi ndax ñoo ko bokk sëriñ Cheikh gis nañu teraanga yi mu nu yónnee ci sant nañ ko bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla eh, yàgg na koo def eh, ren yi def na ko def goo xam ne ko sax suñ jot ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi yàlla defal ko wér ci dal ci barke yonent bi sallallahu alayhi li mu yéene ci tari ci yoonu sëñ Tuubaa bi yàlla na ko yàlla defal ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp li ñu waroon wax yëpp sëñ bu xalif wax na ko ak sëñ Bachir ak taalibe yi wax nañu li war a wax yëpp di ñaan yàlla may nu nu fekke déwén ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barki Cheikh Mouhamed Kounti allahumma salli ala sayyidina Muhammad taslima asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu niñ waxee rek euh, tey moom plateau bi mat na ndax kilifa yee ñu ngi fi euh, li ñu wax tamit wax na lu bari dama rek ca gàttal muy programme laay wax man kañ la dimanche 18 décembre yàlla def na weeru jul bi dafa dafa maase ak calendrier tubaab le 18 la ci weer wi ci 18 ci weeru jul di 18 ci décembre neex naa jàpp baax a baax euh, bis bi nag euh, lan lañ ci séntu mooy programme bi mooy dimanche bi ci suba ni ñu ko daan defee daare kaamil ak yenn bon volonté yi dinañ wàcc alquran suba huit heures ba booru midi nit ñi dañu saafonte euh, quinze heures trente nag sëñ bu wax nañu insisté baax mooy réception bi fii ci kër xalifa bi euh, berndeer suñu gan ñi jiital ci kilifa diine yi teg ci nag administration bi ak euh, délégation officielle bi nga xam ne président de la république leen yónni pour ñu ñëw jàppale ñu si bis bi saafonte ak ñun quinze heures trente lañ leen di xaar Euh, dana feeñ ci carte yi 15 heures 30 nag ba 16 heures 30 ci kër gi la ñu nekk nañ nag dem ca place ba mooy place ba léegi nag koo gis xam ne soppeeku na ndax léegi mbaar mi ñu tuddee Cheikh Moussa ko moo fa nekk foofu lañ fay gàmmoo bâche yi amatul léegi mbaar mu mag benn abri moo fa nekk suñ fa demee euh, xalif euh, délégation bi dañ dañ leen fiy jiital xalif ba fekk leen fa loolu mooy lu ñu tuddee cérémonie officielle xam nañ ñu mu demee ki koy jiite nag mën nañ ko wax mooy le ministre de l' intérieur le ministre des allah mooy ñëw Abdoulaye Daouda Diallo euh, confirmé ne ne mooy ñëw si jour boobu ànd ak ay ministre fekk ñu fu ñu teeru ko mu ñëw nag feggoog sëñ bi ñu saafonte euh, bu xalifa wax na ko léegi euh, thème bi xaj na dinañ ko laal tuuti foofu si place nit ñi mais duñ ko mën a développé xam naa si guddi gi dañ ko gën a mën a développé euh, wax na ko léegi muy tontu islaam ci violence yi fi am violence yëpp nag parce que soo koy yemalee sax si wàllu diine dafay xat mais nañ xool nit ñi ñu xool seen bopp xool lu tax nit ki di mën a taxaw di def di lor moroomu moroomam moroomu nitam wax ma sax a jullit gis ngeen actualité bi wax na ko gis ngeen ni ñuy boomee bakkan yi loolu lan ma ko war ak lan ma koy dindi ak islam lan la ci wax euh, bu xalifa annoncé na ko Euh, suñu waajur Mouhamed Bachir Kounta dina si. dina si dina mais dinañ koy yaatal toofa doom ñu ngi si ñu ngi si invité ñu bari sëñ Modou officiel bi nag bëgguñu mu am càmbal càmbal ñu bëgg ñu organiser ko kaddu yi ñu limité ko euh, presse bi ñu jox leen seen pa seen seen seen wàll ndax yenn saa tamit du ñu mën def seen liggéey kon tamit ñu ngi wax comité cellule de communication bi mu jàpp ci espace presse bi am espace bi sax na am feneen ndax dinañ ko installé fii ci kër gi muy espace presse. nga xam ne journaliste dañu mën def seen liggéey ndax xam nañ leen ne euh, communication ni mu amee doole ci événement yu mel nii si ngeen moo tax tey ñoom ñoo fi nekk ñoo nekk nii suñu kanam di ñu filmer di jottali suñu kàddu euh, guddi gi nag mooy veille bi kooku nag mooy genre table ronde la euh, ñu ngi ci woow ñëpp suñu waajur mi ngi fàttali bu xalifa ne ko fi nekkoon moo fi nekk rek mu ñu organiser ko ndax lépp dañ koy organiser teg ko ci yoon commencé ko nag nee nañ teel a génn ne 9h na leen fa fekk du dem ba ba fajar di wax tamit euh, journalistes si rajo yi télévision la press presse ñu ñëw jàppale ñu si loolu ñu ñu diffuser ko jàllale ko bu baax a baax a baax bi si des mooy euh, circulation bi euh, am na plan de circulation Ndiassane am na fu ñu koy duggee ak fu ñu koy génnee am na ay laissez-passer incha allah ñi ci war a jot dañ si jot. dañ si xajal tamit presse bi ñu ma def seen liggéey ay ay badge incha allahu fu ñu war a dugg yëpp dañ fa danañ fa dugg gendarme tamit ñu euh, respecté consignes yi ndax dafa am nu tracé bu ñu def kenn du tëb rek bi biir Ndiassane am na nu fooy jaar ñi am laissez-passer aussi am na fu ñu jaar ñi am bulletin de liaison am na fu ñu jaar loolu gendarmerie force de sécurité yi incha allahu dinañ ko def bi si des mooy appel à la sécurité ñi ngi wax affaire violence Euh, ñaanuñu ko mais tamit euh, ay xel dafa baax lool ci contexte bi ñu nekk te mbooloo daf fi daje euh, ñu bàyyi si xel ku nekk daal na nekk surveillant ka ca des loolu tamit ñu ngi ci ñu ngi seen woo ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax ndax ay junni nit fu ñu daje nit ñi ñoo war a nekk d'abord seen propre surveillant bi ci des mooy gàmmu su régional la dinañ ko wax malien yi dañ fiy ñëw am na sax lu ñu tuddee marché malien mais dama naan marché africain dañ fi ñëw ay gan la ñu ñëw fii incha allahu dañuy assurer seen seen sécurité ba bañ fiy jóge dañ leen yaatal ndax aussi dafa am loo xam ne ñun ñoo ko am muy marché malien boobu du ma dugg si détails yi du ma def euh, publicité mais ñëpp dañuy daw di ñu wut si fii ñoom dañ fi am weer sax di continuer def seen liggéey te loolu ni ko euh, Mouhidine di waxee loolu si barke Cheikh Mohamed Kounta la mooy doxal lu mel noonu ñun rek ñun ñoo am lu mel noonu euh, si ay communauté boo xam ne moo ne 3000 personnes ñëw toog fi weer di def seen liggéey di ci am seen teraanga di seen seen sëriñ bi si des mooy ñu woo autorité yi euh, ñii jóge Gambie jóge Mali surtout Gambie ñu yombal leen yoon ndax liñ fi indi yëpp addiye la ñu indi di ko indi seen sëriñ euh, woo nañ ma si suba di wax ne nañ leen jàppale si lu mel noonu xam ne rek duñu ay commerçant mais dañu ñëw indi ay addiye indi ay cadeau di ko indi seen sëriñ te loolu mooy xumbal gàmm gi loolu mooy neexal gàmm gi donc côté Farafeñe côté Kaarang ñu duggee noonu yëpp nañ leen yombalal yoon bi waxuñu ne bu kenn contrôlé de mais ñu yombalal yoon bi ba ñu yegg ak jàmm ndax ñoom loolu rek mooy seen yitte yegg seen dëkk sëriñ tereel seen sëriñ nekk feek ñun kon nag loolu tam ñu ngi wax euh, muy gendarmerie muy duwaan muy euh, police ak ñu mel noonu ñu jàppale leen tegtal leen teg leen si yoon accompagner leen ba ñu yegg feek jàmm loolu mooy donc message bi nga xam ne vraiment mm, bëggoon nañ ko jàllale mooy cër bi nga xam ne wax nañ ma naa ci insister bi ci des aussi euh, Mamadou Diop wax na ko muy diaspora gàmm gi ñëpp la concerné ku mënul ñëw fa nga nekk na ko fa célébrer ndax euh, mawlud la ku nekk mën ko ña ko fay def te ñu ànd ak ñoom taalib kunte ànd ak ñoom célébrer ko ndax ñun amuñu xeej yi ak seen ñu ñu joxante loxo muy su soin diaspora mooy ni ko Mamadou Diop waxee mooy fépp rek guddi gi suñu mënul ñëw su fekkee ñëw seen njaboot a ngi fi ñoom ñu ngi fi ñu def li ñu war a def julli naafi la ñaan ñaanal Sénégal ñaanal seen bopp ndax loolu dañ ko am muy un élément essentiel ci ci Sénégal loolu rek mooy message bi nga xam ne bëggoon nañ ko jàllale bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi daali ala wujudihi bi xalqi wa bi muxdasi xalqihi ala azaliyati allahuma salli ala sayidina muhammadin salaatan takunu lana ala llahi baaban mashhuuda wa an aadai xijaaban masduuda wa ala alihi wa saxbi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dafa mel na bisu njaasaan bisu diine jile yëpp ndax bokk benn aqida waaye itam bokk deret bésu kër maam Alaaji Malick si ridwanullah alayhi moom la ndax bésu Seex Boo Kunta la fab nanu doomu jigéen bu Cheikh bu Mouhamad Kunta mu di soxna Mariam Sidi Kunta dénk ko sëriñ kër si moo ko muuru waaye bésu Cheikh Bou Kounta itam bésu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu ndax fab na doomam di nuy wax soxna Aïchatou Kunta dénk Serigne Mouhamadou Moustapha Kun Serigne Mouhamadou Moustapha mbake mi ngeen xam ni moo jëkk toog ci deru Serigne Touba fab na doomam ju wax soxna Aminatu Kunta dénk ko Serigne Mouhamadou Moustapha Fall taawu Cheikh Ibra fab na doomam ju jigéen ju nuy wax soxna Mariama Kunta dénk ko Chérif Abdoul Aziz Aydara ca Tëngéej xalifa bi tey ngeen xam ni moo jëkk toog ci der bi te di sët gannaaw bàyyi moo di Alaaji Mambu Mamadou Kunta mi ngee denc doomu Serigne Mouhamadou Moustapha mbake kon bés bi bésu diine ji yëpp la a ah, ñu di si woo ñëpp nag sëñ Sidi Maxtaar Mbacké mais xam ni tuddee nañ ko këkkantoo tuddees sunu maam Cheikh Sidil Mokhtar la nu ko tuddee bésama di bésu Seydi Cheikh Ahmad Tidiane si al Maktoum di bésu Canaba di bésu Ñaseen di bésu sunu maam Cheikh Mouhamad Fadal ay dara di bésu sunu maam Cheikh mu doomam ja ju tedd ja sunu maam Cheikh na Cheikh Sadbu di bésu sunu maam Cheikh Mahfouz waaye di bésu Elimaan Boubacar Kan ca Dimat di bésu Qaadi Bekkaay Ba di bésu këru diina yëpp sëriñ bi di ci woo ñëpp nag ndax itam mbir mi moo di Alaaji Seydi Wela rahmatullah gàmmu na mu deme nee na 1902 ba ka maam ji Malick yëkkate dafa ñëw giseek mbokkam Cheikh bu Mouhamad Kunta Cheikh bu Mouhamad Kunta ni kan man de si suma jóg ci di gàmmu mu ni ka xanaa da nga ko génnewuloon mu ni ka déedéet mu ni ka na nga ko daan defe mu ni ko boo weer wi mosaan tere teru bu xalifa junj duñ daan dajale njaboot gi di jàng alquran di waxtaan ci xadisu yenant bi nee ba guddi gaa bu nu reeree ba pare ñu nekk ci salaatu ala nabi naafila jeexale salaatu ala nabi ne nii la ko daan defe mu ni ko lu taxoon nga tànn façon boobu mu ni bañoon rek nit ñi dugal ci lu ci bokkul dama laaj maa ni ka man de jox nga ma xel teem a def na yoo mu ni ko déedéet si comme da nga ko bëgg a génne génne ko rek alaaji Seydou Wele nee na ca la maam alaaji Malick defe ca laamiyaam nga ni alaa azimu layla alwiladati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami odul dagan na dana dana dana dana jaadu ñu màggal gudd yenente boobu fekkee ni du jur bàkkaar gis nga mag ñi de mbokkam ma Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu wax wax ni taxdimuhu bi sunnati màggal leen ko ay dëppoo sunna kon mag ñi la leen waroon def nañu ko ah léegi Cheikh bu Mouhamad Kunta radiallahu anhu ni maam Alaaji Malik radiallahu anhu léegi defal ci bés bu gudd bu jëkk ba mu ni ko man bu bésu ngénte laa ma def mu ni ko lu tax nga tànn ngénte la mu ni ko si bañ rek rëgg-rëggloo ak yow léegi bu bu guddi gu njëkk gaa sama njaboot daan ñëw wuy si la bu bésu juróom-ñetteel fan ba sa njaboot ñëw mu ni ko loolu de lu rafet la lii moo indi juróom-ñetti fanu njaasaan rawatina bi nga xamee ne nag liir bi ñun ñoo ko war a ngénte kon ñu ciy woon ñëpp li nga xam ni nag moo sosoon dëkk bi moo di alquran ak sunna moom la ko cheikh bu muhammad radiyallahu anhu sose woon te coowu jamono mën na ñàkk fa in tanazaxtum fi cheyin fa rudduuhu ila allahi wa rasul yi mu jeex bu ngeen jiboowul yàlla nee na delloo leen ko ci alquran ak sunna kon alaaji maam bu Mamadou Kounta xalif général mi ngi woo mbokkam yëpp di woo diine ji yëpp li ñu war waxtaane sama doom coordonnateur général au conseil des collectivités territorial di professeur Mouhamed Kounta wax na ko moo di dina dinañu wax ci mbiru fitna xam nga fitna dafa yemul rekk ci ja jaamaarloo fab fab gànnaay di xeex wax ju yëkkati xol yi wax yu jaxase xel yi wax yu yàq diggante yi demaleek fekkale yëpp ci fitna la bokk te yàlla nee na fitna moo gën bon guerre kon loolu dina ñu ci wax rawatina nag ñi nga xam ni ormaalu nu dundu doomu aadama bay rey nit ñi ñu ngi ci béréb boo xam ne sorewunu mu di Mali gi te fa nekk ñun sunu dëkk la sunu famille yëpp a fa nekk mu di nooru Mali dama ni Tombouctou dunoo wax ni c'est la ville des trente-trois saints fanweeri waliyu ak ñett ñoo fa nekk dama ni ñaar fukk ak juróom-ñeenti ñëpp kunta lañu sant suñuy maam lañu ñeenti ne ñoo bokk ak ñoom néegu ndey ñiy toj bàmmeel yi di toj rawdo yi sunu bàmmeelu maam lañu mujj song mu di bàmmeelu sunu maam Cheikh Sidi Yahya Kunta ay yembaleen fa dàq duma leen ñu daw kaka jiite woon ma nga nee ca CP yi tëj na ni ko juróom-ñeenti atu kaso kon li xew ci Mali foog mu yitteel ñu rawate nag bi ngeen xamee ne yàlla dafa ni wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa waalamu anna allaha shadidul iqab yàlla nee na moytandiku leen fitna goo xam ne safara la ga bu takkee dana laal ñu ci bokkul ñax mu wow lakk bu tooy yenent bi ni al fitnatu naimatun la an allah man ay xasaha nee na fitna njuuma gu tëdd di nelaw la na rëbb yàlla dotteeku ci ki nga xam ne yee na kon loolu dinañu ko waxtaane ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwunu kenn mag ak ndaw góor ak jigéen te ku fi ñëw ngay sellal sa yéene indi fi lu baax jëli fi lu baax ku fi indi lu bon nag loolu dina këpp ci sa kaw woote ñu fi lu bon du ci zahir du ci baatin kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp te di ñaan yàlla mu may ñu ñu fekke ko gën gaa rafeti anam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.